bilan président Macky la euh, bilan bi vraiment c'est un peu dommage dommage voilà parce que euh, mënoon na def lu bari ah mënoon def da bari euh, emprunté Sénégal treize mille milliards du dara du dara waaye mënoon nañ ko dugal foo xam ne day produire mm-hmm. mënoon nañ ko dugal bari na yoo xam ne def nañ ko yoo xam ne nii mënoon na dekk en un financement investissement yi rentable lul. waaw rentable parce que li am mooy ñun ñooy jël suñu budget di ci dugalaat te loolu du du investissement. Mm-hmm. investissement da ngay def investissement boo xam ne dana mën a doxal boppam. Euh, je peux donner un exemple benn investissement Kaolack mais boobu ci temps président Abdoulaye Wade la woon. Mm-hmm. cœur de ville nañ ko naroon a defee buñ ko bàyyi woon ba léegi état mooy dugal lu koy doxal. mooy moo koy dugal budget état la ñuy ko doxal parce que l'exemple gis nañ ko ci maison de la jeunesse mi ngi fa. Euh, mi ma nga fa ñu tabax ko ba pare c'est sûr que état moo koy doxal mais ñun buñ ñu toppee danañ ko defar ba nga xam ne nii état mën na ci dugal loxo mais bu paree day freiné. Mm-hmm. loolu mënoon na am ci BRT bi mënoon na am ci TER bi. Mm-hmm. Mm-hmm. mënoon na am ci stade yi ndax stade yi euh, des c'est des espaces euh, commerce yoo xam ne ni mën na accueillir lu bëree bëri mënoon na am ci Diamniadio mënoon na am ci lu bëree bëri bilan boobu moom wax dëgg yàlla. Euh, xam nga c'est kenn mënut a wax baaxul ndax mm-hmm. mi ngi ci réew mi ba noppi mais li ñu war a gaaw fexe gouvernement bi li mu war a fexe mooy infrastructure yooyu bañ a bañ a jurati ñu jël suñu budget di ci dugal dañu bañ a defati investissement yi maintenant. ay investissement yu lourd la. yu amul ñaareel ba mooy ñaareel ba mooy dañu investir lu ci bari dugal ko yemale ko Dakar loolu tamit euh, tamit kii la nu mu tuddati handicap la boo xam ne nii. dañu gën a doppe Dakar. Mhm. les gens viennent ici pour chercher. Ouais, tout le monde vient à Dakar ouais. région yi mi ngi gën di mi ngi gën di. dellu gannaaw ci population yi gën a pauvre waaw d' accord population bi di gën di pauvre. le programme Macky Sall on dit que euh, def na lu bëri ci ci milieu rural bi euh, électricité rurale euh, ndox mi piste de production yi ay mbir la yoo xam ne. waaw loolu moom loolu loolu loolu c' est vrai que ñu ngi koy rafetlu rafet na mhm. loolu moom kenn waaye nag lii tax nit ñi toog fa. Ah. lii tax nit ñi toog fa. sama ay barabu liggéeyukaay par exemple am seen koom. Mhm. am seen lépp am fajuwaay am jànguwaay loolu defuñ ko xam nga nit ki nga defal ko mu am koom sax après nga doog ko defal mu am yoon xëy na yoon bi moo indi koom bi waaye boo indi yoon bi mën a te indi woo koom bi. Mhm. du ko mi ngi mel ne waaw mi ngi mel ne nit nga tabaxal ko euh, nga nga nga nga jël kër tabax garage te amul oto. <laughs> dégg nga yooyu yëpp amul sens waaw amul sens dégg nga bàyyi woon garage ba nga def ko boutique boutique bi liggéey indi oto xam nga moo moo moo gën a. Mhm. boobu am na li ci gën sincèrement nit ki mu kenn mënut a wax ne lépp baaxul mais ñaar yi daal gis naa ne di euh, gis naa ne moom sooxe na ak beneen bi ki des mooy vraiment liberté bi ak démocratie bi. Mm-hmm. Euh, metti na trop ndax metti na. Euh, mais on dit que trop de liberté tue l'économie parce que aussi ku jug manifester ku jug génn kaas ay barab lañ koy defee xëy na mën na handicapé ña fa ña fa ña fay ña fay yëngu. waaw waaw mais mais répression mënu ko régler répression mënu ko régler. Mm-hmm. su dee fekk nit ki ci li mu bëgg nga jàppale ko ci wala nga expliquer ko wala nga déglu ko moo gën a yomb ci répression répression mosul rek dara kër yi sax xam nga ne bu njëkk eh, dañ daan yara